kon jàngat bee ngi noonu tey ma ànd ceeg euh, soxna Fatima gannaaw bu ma àndee ak Père ba pare soxna Fatima maa ngi lay nuyu. Baye Diéry maa ngi lay fay xanaa di leen nuyu bu baax a baax di bëggee ñi nga xam te ne ñoom ñooñu si sur Wassare Lamb Wassare TV kon ni ñu koy waxee rek. Hmm. di bëggee nag képp koo xamante ni rek instant bi yaa ñuy seetaan di laaj di la laaj rek kon ni mu koy fas kon ni mu koy defee à chaque fois rek nag sa waaw sant yàlla ba ça a été quoi. Mm, ça a été defar nañ suñuy zirik ànd ak suñu waa koñ toog naan waxtaan def niñ ko daan defee chaque samedi. naka taw bi noo ko dundee. waaw taa suñu koñ fees dell ak ndox amoon foo mën a jaar. Mm-hmm. waaw wax dëgg war nañoo autorités yi nekk. ci réew mi war nañoo gestu wala ñu gestu ñu ñun ñi nga xamante ni ñoo dëkkee diggante première tranche 1 ba 6 sonn nañ trop bu tawee dañuy am problème fu ñu jaar dëkk bi yëpp ndox lay doon vraiment loolu moom maa la ci sant di la gërëm ndax message la boo xam ne waroon laa ko lancé te mënu ma ko cee lancé. Mm-hmm. waaw ñun nag ci commune Golf Sud lañ bokk waaye buñ sañoon ñu jàppale ñu bu baax a baax. Mm-hmm. waaw sonn nañ trop. sonn nañ trop kon ko ci banlieue bi lañ dëkk dañ naan da ñun. Mm-hmm. ndax booy ñëw yëmbal surtout yëmbal ñëpp xam nañ ne tata ba fa nekk ak yooyu yëpp. suñu maire bi Bara Gaye jàpp na si ñoom moo du Mbène ñoom ñëpp dañ ci gën a jàpp surtout xale yi nga xam te ne dañuy foy. bi comme que corona bi. xam nga rek ak nawet bi day xaw a métti daal. Hmm. autorité yi nañu jàppale. non ñun moom ñun ñu dëkkee première tranche moom. Euh, un ba six yàlla daa dogal am mairie. Hmm. ñun moom amuñu mairie moom wax dëgg ah. pour dit dara rek ñun moom amuñu mairie moom boo gisee suñu koñ ba nu mu mel nga xam ne vraiment wax dëgg. Hmm. amuñu mairie wax dëgg. di ko nuyuwaat bu baax a baax di ko ziar sama chéri mon amour tey di benn parenthèse la woon rek mais tey jàngat bi nag lan nga ñu si jàngat bi. jàngat bi tey damaa bëgg ñu waxtaan. Mhm. Euh, ci ki nga xamante ni mooy mandat président Alioune Sarr ndax ku ne xam na ni bu ñu juumul euh, novembre bi la mandat am di jeex euh, mu def fi ay diir. ñi ci làmb ñu ci bari rafet lu liggéeyam bu rafet bi nga xamante ne ànd na ko ñoom mhm. fekk am na fu mu fekkoon làmb jëlee ko fa am fu mu ko yóbbu vraiment képp ku nekk ci làmb ñu ngi koy jëfal waaye dañoo gis ni ñu ci bari ci làmb moment bi dafa mel ni dañoo bëgg changement parce koo ci wax rek danaa la ah suñu papa Alioune Sarr li ma doon def ci làmb euh, def na ko euh, tey bu ñu sañoon mu may beneen sens yi nga xamante ni ñooy xale yi ñu am lu bareel bare loo xamante ni seetlu nañ ko tamit ba tey ci géewu làmb muy coow yi nga xam ne daf fay am en chaque fois ñi gis ñuy wër enceinte bi yëpp ay mag lañ doo fa gis xale euh, tarit loolu bokk na ci loo xamante ni ñëpp ñu jiite làmb ñu ngi ci ñaxtu ñu ngi ciy wax ni làmb yi dañuy bëgg parce que bul bul fàtte arène nationale diggante Alioune Seye 2 ak ñàkk jariñ bi coow li amee amul kenn koo xamante ni gis nga ko fa ci ñu ñu wër ci CNG bi ñoo xamante ni mënoon nañoo lijjanti dara parce que coow li toll na foo xamante ne toj na mbiru xale la ay xale ñoo ko mën a euh, lijjanti boo xoolee diggante Ada Fass euh, ak bébé Bismi tamit noonu dem nañ ba mujj gi coow am na ñenn ci amateurs yi dañoo mujjee wàcc di ko lijjanti seen bopp te boobu alors que CNG ba ñoo ko fa mais ñoom ay mag lañ wax rek lañ mën ak bind rapport ne xale yi noppi leen bàyyi leen mënoo ko ñu bind te am na moment bu ñuy toll dama jàpp ni faw mu am loo xamante ne ay xale lañ ni ñoom ñooy dugg seen biir euh, écarter leen canaliser booy yi ku ci nekk ñu gi waaye nag ñu leen di jaajëfal bu baax seen liggéey bu rafet tey loolu lañu fas yéene woon waxtaan ak képp koo xamante ne mbokk internet la rawatina sama soxna si nga xamante ne mooy soxna Fatima mu bëgg ko loo gis ci gis-gis boobu. kon ci xayma daal tey dañoo war a waxtaanee euh, Alioune Sarr moo koy remplacer ci xayma ci li nga wax. waaw manon mandat bi li njëkk mooy euh, mandat bi. Mhm. Euh, dafa war a jeex mois de novembre. Mhm. puisque Alioune Sarr dañ koy renouveler mandat am. Euh, day dem wala mu toog. waaw day dem wala mu toog. Mhm. merci comme ni day dem wala mu toog. Ah. léegi nag dañoo xamul. Ah. amateuru làmb yi dañoo bëgg parce que ñi ci bari. am na ñoo xam ne gis nañ ni dafa war a dem. mais am na ci tamit ñoo xamante ne gis nañ ni dafa war a toog côté bi mu war a demee lan moo tax mu war a dem. côté bi mu toogee lan moo tax mu war a toog tey loolu yëpp bëgg nañ ci waxtaan jàngat ci laaj ci ñenn ñoo xamante ne bokk nañ ci ñu ñu dàq ñuy arbitre yi am na kenn ku leen waxal bokk na ci kenn koo xamante ne tamit laaj nañ ko muy président des des jeunes amateurs muy euh, Gora Ndoye moom it waxtan wax na ci xalaatam tey daal loolu la ñu war a waxtaanee loolu lañ bëgg ñoo waxtaanee yow loo gis Alioune Sarr day dem wala mu toog. ji li mën ngay dugal euh, di la di la remercier bu baax a baax ndax affaire bi am na solo. Hmm. ndax euh, suñ papa Alioune Sarr. quoi hmm. qu'on puisse dire gani hmm. ñun dépp ba ñu nekkee ci làmb ba léegi moom lañ gis. bañ xàmmee. ba toog di wax ba tey moom lañ gis. kon li nga wax rek am na lu mu fi def. wax dëgg yàlla parce que am na fu mu yóbbu làmb am na fu mu ko jëlee am na fu mu ko yóbbu. ndax tey bu ñu demee ba làmb nekk facteur de développement mën nañu wax ne réew mi yëpp di ko seetaan ak làmb commencement bi ni mu demee woon. suñu papa Alioune Sarr am na ci li nga xamante ni loxoom dugg na ci. Hmm. chaque jour nag wax dëgg yàlla même booy def chaque jour lu baax di dem ba gaay gis. lu bon. Hmm. day am positif am négatif. Hmm. comme que nag gars yi ñoom ñoo ne dañoo soxla ay tête yu bees. Hmm. chaque jour soo demee si reportage moom dañ lay wax. jeunes yi nee nañ dañoo soxla ñi nga xamante ne au moins ñu dem ñoom dañ xaw am tuuti dañ mentalité dina xaw a bokk. ndax peut ñoom dañoo yaakaar suñ papa Alioune Sarr peut-être âge bi ak ñun. mentalité du bokk. chaque jour loolu la gars yi di wax mais daal luñ ci mën a wax rek mooy que ni mënuñu coo sori au fond. dañuy ndax li may wax rek à chaque fois ñi ñuy seetaat ñu ñu gën a xam fuuf li ñuy wax. amaana nag dañoo rey làmmiñ di wax rek. mais daal Alioune Sarr moom wax dëgg yàlla quoi qu'on puisse dire am na fu mu yóbbu làmb comme que nag mandaam daa war a jeex ndax 26 ans de pouvoir la def daa ah, sama jum. Hmm. ah bas 26 ans la. waaw waaw 26 hmm. ans de pouvoir. Hmm. ñoom nee nañ c'est trop. Khadim Ndiaye keroog mi ngi naan Alioune Sarr. kenn mënu koo remplacer. Hmm. am na ñeneen ñu doon wax Yékini dégg nga li wax. Hmm. nee na ma buggul. Hmm. Tyson ñu ngi doon wax Tyson Tyson mais ba léegi réagir. arbitre yi am na ñoo xam te ne am nañ capacité pour mën koo yor. Hmm. man daal li ma gis ni kenn ku nekk ca domaine ba nga nekk kenn ku nekk yaa ngi bëgg a xëcc sa bopp ne mën naa ko remplacer Keba yaa gis hmm. mel moo fi taxaw défier ko ne pare na pour dugg CNG. Hmm. te déggoo wax nee na social yi la bëgg a jàppale. loolu la wax ñu ngi koy gis suñu làmb kon donc Alioune du samay kàddu. mais boo waxee ñu ne ñu ko mën a remplacer bari na mais est-ce que ku mel ni Alioune Sarr. dinañ mën a amaat question boobu man lay laaj. ah loolu nag dafay nekk wax joo xamante ni euh, buñ demee ba koy wax ci làmb waa làmb war nañu seetaat seen bopp bi njëkk mooy buñ demee ba naan bu fi Alioune jógee suñu papa Alioune bu fi jógee kan lañ fiy teg loolu gàcce la ci làmb loolu ñaaw la ci làmb loolu ku ko dégg sax war ngaa mën a rus am gàccee parce que. làmb doonatul loo xamante ni war nañ mën a toog naan bu fi suñu papa Alioune Sarr jógee kan lañ fiy teg ñaareel bi mooy am na ci ñoo xamante ni gis naa ne mënuñoo yor CNG bi nga sànq ñaari mbër euh, ba ñett ba ñeent mbër yi mënuñoo yor CNG bi li tax mooy ki ci njëkk maa ngi dégg ngay wax Yaxya Diop Yékini Yaxya Diop Yékini mën na nekk euh, membre ci CNG bi mais mënul nekk président CNG. waa mënu koo nekk sax. moo tax dafa kay dinaa ko indi li tax ma ne mënu koo nekk mooy Yékini fan la bokk. écurie Dakar la nekk. séeréer la tey am na lu mbëru séeréer di def bu ko Yékini euh, bàyyee. wala mu baal ko ci ci ci mën ko toléré wala mu baal ko ci ci en tant que président CNG dañ ñenn ñi nga xamante ni dañoo bokk ci yeneen écrit mun nañoo gis ni non dafa faral ñi mhm. kon nee na ko bandum bi kay léegi tey ku mel ni Balla gay 2 mu dugg si euh, tardé heure CNG bi comme ni ñu koy defee minute bu nekk ñu dagg la dix mille mhm. léegi gay tarde Gaye ki Yékini dagg ko ñu ne non parce que dafa bëre woon ak baal Balla daan ko dafa am benn règlement de compte bu ñu am. Tyson tey ñu jox ko làmb ji mu ñëw mbëru pikin am lu mu def ñu dagg ko wala mu mu dal seen kaw ñu ne non non parce que dafa mosul bëgg waa Pikine wala noo daf ko doon mbubboo wala affaire te làmb doonatul loolu tey am na ci ñoo xamante ni mën nañ koo yor arbitre yi pourquoi pas sitoor Ndoor Sitor Ndour euh, mu taxaw euh, ne candidat la Sénégal vote gars Sénégal amateuru làmb yeeg ñi ne ci làmb ñu votel ko pourquoi pas tey ku mel ni Kéba Kanté nga xamante ni moom mu ngi yëkkati loxoom di jàppale euh, xale yi làmb ñu ci bari ci làmb xale yi koo fëgg boppam mu ne la suñ sañoon Kéba doon président CNG mais c'est Kéba nag du doy doon président CNG day baal mbër yi wala déedéet ku ci def lu dul yoon règlement mooy dal sa kaw parce que du Kéba moo fi toog rek Kéba mi toog nii mi mu bëgg nii Kéba mu baax mi Kéba mu gën nii kebaa mii jàppale mbër du Kéba moomu mooy toog CNG CNG ki fay toog ku maandu lay doon CNG ki fay toog mooy kiy doxal liggéey bi parce que mbër yi tamit du Kéba moo toog rek da leen a war a jàppale war ñoo dagg seen xaalis dañ leen a war a bàyyi ñu nekkee ni leen neexee déedéet làmb du doxee noonu. làmb dafa am réglement man côté boobu laa gis que ni période Alioune Sarr pour man doy na ko. promoteur mën naa remplacer euh, kii promoteur mën naa nekk kii président CNG. déedéet man gisuma loolu. Euh, li tax mënu koo nekk. ak non pas mënu koo nekk mën na koo nekk président CNG ku ne mën na koo doon mais man ci suma gis-gis bu sama xel mu gàtt laay waxee quoi parce que ni man gisuma loolu. li tax gisuma ko mooy promoteur làmb dugg na ci làmb am na lu mu def ci làmb tëggal na xale yi euh, mu ngi leen di jàppale comme ni ñu leen bu buñ sañoon ñu am lu kawe ci làmb mais tey li la dugal ci làmb bu la ci génnewee lépp lu bokk ci làmb war nga cee mën a suur parce que boo nee promoteur nga woon nekk ci làmb di liggéey jékki-jékki bàyyi làmb lépp lu taq ci làmb danga koy bàyyi làmb na ku ko bëgg mu bëgg ku ko bëggul waroo mën a dugal dara ci làmb boo nee man mënuma investir ci làmb wala bàyyi naa làmb ba pare bëgg a duggaat ci làmb xam nga promoteur bi nekk en activité mënul diriger CNG parce que yaa ngi ci activité yi yaa ngi tëgg làmb yaa ngi xool làmb yi gën a neex nga di ko tëgg bokk teg ki nga xamante ni daa bàyyi comme tey ku ci mel ni euh, xam nga Père Gaston mu ngi ci làmb ba génn génnagul mu ngi àtt activité yi tey boo doon xool ñi bàyyi làmb ci promoteur da nga naan daanaka Aziz Ndiaye ngay wax te boo nee Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye fi mu toll nii yaakaar naa yor na leneen lu mu lu gën a waa kay lu ko lu mu gën a doy lu dul ay nekk président CNG pour man daal li ma gis am nañ ay membre yoo xamante ni ak ñeneen ñeneen ñoo xamante ni tey dañoo waneegul seen bopp mais mën nañoo doon membre CNG pour doon membre CNG wala pour pour diriger li nga xamante ni moom mooy euh, teew ci siège bi hmm. est-ce que tey dafa war a am ay critères critères mooy dafa am benn melokaan boo war a mel mel pour nekk mam euh, pour nekk président si mooy war ngaa xam làmb lu njëkk mooy war ngaa xam làmb ñaareel bi mooy war ngaa maîtriser réglement wu làmb ñetteel bi war ngaa xam ni nga diriger ak lan nga war a mën a yokk ci làmb xam nga lu bari nag wax dëgg ci la euh, bu ñu xamtee dëgg rek te yàlla tax lu bari ci làmb suñu papa Alioune Sarr defar na ko. waaye di communiquer ak mbër. waaw. di communiqué communiqué ak mbër yi surtout parce que lu bari ci làmb suñu papa Alioune Sarr def na ko soxna Fatima boo xoolee mbër da ko daan jox 16 heures adversaire am nga jox ko 16 quarante cinq mbër ma dugg heure bi adversaire am war a dugg adversaire bi nga jox ko heure heures cinq mu bàyyi ba 17 heures et quelque mu dugg kañ nga gëj a gis mbër dugg si ci làmb 16 heures mbër yi léegi ban heure nga leen di ay 10 heures ay 11 ay midi mbër duggatul ci làmb 16 heures parce que li tax mooy minute boo perte ñu dagg la 10 000 nga perte 30 minutes ñu dagg la 300 000 nga dem ba xam ne lii tardement bi sa sa mbiru bopp la embouteillage day am yoon bi dangay war a dem mu xat si say say ñi lay ànd ak yow fatt yoon bi wala ñu baare ko bëgg la escorter pour ba nga yegg ci làmb yooyu yëpp day jël temps day waral mbër mi teel a dem léegi yow mi nga xam te tey mbër ñaata 10 litres lañ daan indi ci digg géew du jeex 10 litres yu bari yooyu yëpp am na ci certes yoo xamante ne da daan neexal làmb mais 10 litres yu bari yi da daan yàq da ngay gis mbër moo xamante ne ñu ngi war a siffler 19 heures nga nekk ci say bain nekk say bain ba 19 heures cinq làmb ju guddi nit ñi di ñibbi sécurité bi demeewul noonu ñi waaw kay signature contrat noonu léegi loolu yëpp nag boo ko defee mbër yi dañuy xam fu ñu toog mhm. dañuy xam fu ñuy teg seen tànk dañuy xam li ñu gën a bëgg ci làmb di ko def vraiment président CNG euh, suñu papa Alioune am na lu mu defar ci làmb lu baree baree bare mhm. mais fi mu toll nii moom wax dëgg ñi nànk làmb ñëpp mhm. man de bu doon bu doon man la tey euh, wala ma am conseil bu ma koy doole euh, sama papa la mais dama naan ko mu ne waaw ma ne ko ah man de suma sañoon nga bàyyi conseil boobu nga jox papa wax dëgg. sama yow booy bi. waaw man booy bi nga xamante ne xamu ba dara. <laughs> Ah. wax ko ko nag ni ko wax dëgg wax ko lim fi def. Hmm. ko vraiment làmb sant nañ la gërëm nañ la mais ñun xale yi ne ci làmb. Hmm. yéen xale ñun xale yi ne ci làmb. jiili waaw baax <laughs> xale yi yéen baal ma ñun xale yi ne ci làmb. <laughs> Ah, ah. ñoo lay ñaanal. Mm. gudd fan ak wér. ba lépp loo dugg rek yàlla defal la ci ndam. Mm. mais buñ sañoon président CNG. Mm. nga bàyyi ñu ñu xoolaat keneen koo xamante ne am nañ ci moom yaakaar. jàpp nañ ne war naa mën a yóbbu làmb fu kawe. fi nga ko yóbbu woon war na ko mën a yóbbu fu gën a kawe foofu ñu jox ko kooku ñaanal ko nag dooleel ko. man nag dafa am yoo xamante ne daf may métti bu ma déggee ñaa non non euh, li suñu papa Alioune Sarr def keneen koo fi jox ci CNG bi mandat bi day doon lu gàtt rek. kuñ jox suñu làmb ji deux ans. dañ lay ñamal rek mënoo koo gérer ñu jël ko say loxo tegaat keneen. Mm-hmm. Euh, jii li li nga wax foofu noonu moom dafa am solo yow da wax lépp. wax dëgg yàlla. Ah, wax laa sama xalaat daal non xoolal wax nga lépp macha allah wax ci tegu na. Ah. mais man li may dolli rek mooy keneen ku mënti ñëw. Hmm. wala keneen ku ñëwaat. tey euh, jékki-jékki rek fal nit. Hmm. loolu moom dañ koy ñaan ki nga xamante ne moom mooy mooy suñu ministre xam nga mu mu loolu mu bàyyi si xel ndax làmb ji. nekkatul. Hmm. dafa nekk loo xamante ni ñun ñëpp ñoo ci bokk muy reporter bi. Hmm. muy mbër mi muy amateur bi. ndax euh, làmb suma juumu ñooñu ngay wax. Hmm. kon donc keneen ku mënti ñëw ak ku mënti ñëw rek ñun. nañu yëgal gars yi bu ko defee mën nañoo def benn kii ñu sélectionné def kii dem def benn vote. non noonu la war a demee soxna Fatima noonu la war a demee parce que dañoo war a def vote. bu defee vote. képp koo xamante ne ñii ci écrit yeeg. et quoi pas écrit bu nekk ñu jol président écrit bi euh, CNG bi euh, kii nu mu tuddati amateurs yi ñu jël amateurs yi ci ci promoteurs yi ñu jël ci ku ci nekk ñu toog def ko vote ñu voté ki nga xamante ni moom lañ fal ñu fal ko mandat am benn durée comme président CNG waaw comme fi mu toll nii ni ñu ko defal suñu papa Alioune Sarr mandat am day waaj a jeex bu demee keneen ñëw toog ñu yokk liggéey bi làmb jëm ci kanam parce que làmb nag ku ci nekk ku yokkul yaa wàññi <laughs> gàcce la nga ñëw doon xale bu ndaw suñu papa Alioune Sarr mag la fuuf li mu def ci làmb ñu ñëw wóolu la jox la président CNG nga décevoir askan wi. te 26 ans de pouvoir yi ñu fi toog. Mm. kenn moom képp ku mënti ñëw na xam ne 26 ans mu dootu ko toogati. déedéet waxuma la sax 27 5 ans sax du ko toogati. kon donc nag comme ñi doon wax Alioune na fi jóge na fi jóge. Mm. bis bu demee waxuma mu jóge fi mais bis bu demee tey ba jóge fi. tey képp ku ñu mënti far rek na def loo xamante ni la gën la Alioune Sarr def. xam nga ki naan diw mënuma koo remplacer ku ñàkk gëm boppam la. te kon li ngay wax instant bi ay jeunes ñoo fi nekk ñoo xamante ni dañoo mature. ñoo xamante ni tey xam nañ fi ñuy teg seen tànk ku ne diw mënumaa remplacer dangaa gëm sa bopp. te leer na ne am ñoom te ni fii nii wallaahi mën nañoo diriger CNG bi. Hmm. man xam naa ñoo xamante ni am nañ capacité bi am na ñoo xamante ni tey ku leen ko joxoon ci règlement rek la ñuy dox. limal ma askan bi dégg waxal ñett. noo xam nga tey man je suis mal placé man xam nga yow da am fitt man yaa ma ëpp mais du fit xam nga euh, soxna Fatima. Mhm. nit ku nekk ak sa xalaat. Mhm. mais jàpp nga ni pas kii mooy toog. Mhm. mais nga limal ma ñett ni xam nga kii toog yàlla dong moo xam. mais tey am nga droit comme man. tey damaa sama gis-gis laa am. ba ni nii ak Tyson pour man loolu. buñ leen falee rek euh, mën na am benn ay faay yu mu def. léegi pour pourquoi pas nga tudd ne diw diw diw. suñu mbokk internet yi ñuy seetaan. xam ni kat diw mi après ñoom dinaa leen ko wax mais en tout cas daal lu ma la mën a wax suñu papa Alioune Sarr. Mhm. wax dëgg yàlla il a tout fait xam luñ fi ne nañ moo nga la na kii ñëw na moo war a def li nga xam xamante ni moom moo gën loolu dafa mel ni amoon nga ay élément yow war a dugal. merci kon bu ko defee ñu dem seetaani ki nga xamante ni mooy euh, Gora Ndoye président des jeunes amateur moom it mu wax xalaatam su ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi. waaw asalaamaaleykum jili bu wasaare làmb ji maa lay nuyu di la siyaare man la Gora Ndoye président des jeunes amateurs waaye jili li ma laaj moom dinaa ci sawar a tontu ndaxte yàlla dogoon làmb ji ñun ñëpp ñoo ko bokk waaw ñu lay remercier vraiment ci initiative bi parce que li xalaat nii vraiment xalaat la ndaxte tey Alioune Sarr comme ni nga ma ko laajee mandat am war a jeex octobre waaw ñuy laaj ndax dañ ko war a renouveler wala waruñu ko renouveler loolu noonu question la boo xamante ni yaakaar naa ni boobu mu ngi daw ci réseaux sociaux yi nit ñi ñu ngi ciy waxtaanee surtout le monde de la lutte mais nag Alioune tey man su ma amoon lu ma koy conseil li ko suñu frère mujjee wax rek yàggul dara muy Aziz Ndiaye laa koy waxaat mooy que ni làmb mënoo ci def tey ji loo ci deful woon yaakaar naa ni tey ji nii mu ngi jëm mag te mbir boo ko yoree def ci lu ne waaw def ci lu ne ba ñëpp di ko rafetlu waaw bu dem jotee rek demal parce que tey ji nii mën nañu wax ni Alioune Sarr doo fi toogaat at mu fi toogoon ndax yaakaar naa 94 lañ ko jox CNG bi ba tey ji nii kenn du ne liggéey liggéey na mais ci biir liggéey bi aussi tamit dañoo am ay faay ay faay yi ñu am ñun les ñu les jeunes amateurs li ñu njëkk a seetlu ci géew bi mooy que ni géew bi ay mag kese ñoo ci nekk te mag yooyu ci nekk noonu tey jii nii am na langue fu ñu toll parce que gis nañ combat ñax jariñu ak euh, Alioune yi numéro 2 bi làmb ji amee problème dañu gis na ñoom dañu dem taxaw ci nële gis nañ ko tamit jour bi aada faas di bëre ak euh, bébé bis mi gis nañ ko ci biir làmb ji làmb ji toj na ñun ñoo mujj di leen interpeller ci kaw tribune bi di leen wax wàcc leen ngeen rek liggéey bi ñu toog fi ñu toog parce que ay mag lañu am na fu làmb di amee di toll di am tension yenn tension yi duñ ko mën a gérer foofu nag liñ fiy ñaan lenn la ñun bi ñu ministre bi recevoir Matar Ba wax nañ ko ko ne ko na jël ay xale ñu doole leen ci biir géew bi renforcer waat CNG bi ak ay xale waaw comme nag yàlla dogal na seen mandat mu ngi jeex man li ma gisoon mooy ñu bàyyi waa ñu joxe lenge yi ndax làmb yaakaar naa ñu ko mën a yor bari na ñu ko mën a yor bari na du ñu seet a tur nag mais ñu ko mën a yor bari na ndax fi xam-xam moom yaakaar naa du benn nit kese moo ko am nag nar fi nekk tamit éternellement quoi làmb ñëpp ñoo ko bokk te ku nekk am nga fi tey jii pour am nga loo xamante ni am nga ko pour liggéeyal làmb waaw mooy li ñuy waxtaanee fan yii yëpp suñu groupe whatsapp bi il faut yenn nit yi ñu may leen chance ñu liggéey mais nit ki doo ko jël teg ko ci benn poste rek plus de ñaata at plus de 26 ans waaw nga teg ko ci benn poste rek ne moom rek la à moom keneen mënul non waaw non parce que tamit fii lépp continuité la tey Alioune liggéey na liggéey boo xamante ni ñëpp ñu ngi koy rafetlu waaw jëlee na ci làmb lu bari defaraat na làmb mais nag comme dem na ba nit ñi naan doy na doy na doy na na bàyyi te dem bàyyi keneen ñëw waaw ñu xool parce que tamit affaire yi tamit noonu kese la quoi waaw loo gisee continuité la waaw na may chance xale yi nga xamante ni ñu ngi suuf bëgg a yor CNG bi ñëw pour liggéey aussi tamit waaw ñun moom en tant que amateur ñun suñu gis-gis loolu la quoi. waaw parce que coow li bari na na dem na dem na dem na dem na dem dañ koy ñaan rek en tant que père parce que kenn mënu ko fi jëlee yàlla suñu borom rek moo fi mën a jëlee mais ñu ngi koy ñaan en tant que père waaw na bàyyi làmb ji wan ko ginnaaw continuer liggéeyam macha allah yàlla mu ngi koy suturaal waaw mu bàyyi ñi nga xamante ni bëgg nañ jiite waa ñu ñëw jiite liggéey liggéey mu jëm kanam loolu daal laa koy ñaan. ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax mooy président Gora Ndoye euh, di président des jeunes amateurs wax ji rafet na trop am na solo. te it li mu wax presque moom la sénégalais yëpp bëgg a wax te amuñu ku leen ko waxal parce que vraiment euh, liggéey boo gis am na retraite euh, te tey boo xoolee CNG bi am na ci ñoo xamante ne ay mag lañ vraiment te euh, sonn nañ bëgg nañ ku leen aw te xëy na xam naa ne dañ ko munta wax te fi mu toll nii am na xale yoo xamante ne pare nañ pour yor CNG bi pare nañ pour pour pour téye ko pare nañ pour def lu lu raw lu suñu papa Alioune def parce que àdduna boo gisee rek loo gis rek loolu la soxna Fatima wax na ba ni ah man de su ma amoon conseil bu ma koy jox dama naan ko mu arrêté te it keneen koo ci laaj loolu lay wax yow ban gis-gis nga am ci waxi góorandoo yi mm-hmm. euh, bas ñu koy nuyuwaat bu baax a baax muy président des jeunes amateurs muy góorandoo yi mm-hmm. ndax moom ko disponible na mais yow lim fi mu terminé rek li mu wax mm-hmm. presque lépp wax nga ko ndax déggoo lu wax nee trop. nee na nag instant bi doy na doy nañ xool ñeneen te comme ko ñoom ñooy amateur te lu kenn wax ñëpp ko wax. loolu moom buñ ci débat parce que wax nga ko pare te euh, bien vrai que nag la répétition est pédagogique. mais mm. comme que dañuy liggéey ci temps après yow nga décortiquer ko rek. ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk internet yi seetaan Wassare Lamb loolu nag dama koy bàyyi gi yéen su ko defee ñu ñëwaat ci deuxième élément bi. Mhm. deuxième élément bi kan la. waaw deuxième élément bi moom dafa nekk koo xam te ni gars yi instant bi day def buzz. Mhm. ndax ñëpp xam nañu barki dem boo jaay arbitre bi. Mhm. génn waat nañ attaqué Alioune Sarr bu baax ba laalaale Matar Ba. Euh, dé euh, ñu dem seeti ki nga xamante ni moom mooy euh, Malick Ngom sa copain. Mm-hmm. <laughs> ñu déglu ko moom lan la wax ci kan moo mën a remplacer Alioune Sarr. ayca ñu dem déglu Malick Ngom te dellu si waat ci plateau bi. asalaamaaleykum waa Wasaare Lamb ma leen di nuyu man maalik ngoom nekk arbitre au CNG. nuyu Basirou nuyu nuyu la yow Fatma di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi leen di seetaan parce que seen site bi aussi am na solo trop yéen a ngi doxal làmb euh, question bi nga ma posé kan moom mën a remplacer président CNG bi fi nekk euh, question boobu man je pense que neex naa tontu da ngay dégg ñu bëri di naan presque quinze millions de sénégalais yi fi nekk bu ñenn ñi di naan kii bu fi jógee làmb dina tas ah quelque part day mel ni daal. Euh, li des yëpp kenn amul compétence kenn amul xarañte pour mun a doxal structure bu toll ni CNG fekk nañ fi lu baax am na lu fi sooxee donc ki ko mën a remplacer na nekk koo xam ne lépp li nga xam ne def nañ ko mu baax nañ ko maintenir te lépp li nga xam ne moom doxul te day delloo lamba ginnaaw mu dind ko indi ay lu bees bokk na ci luwaa yoo xam ne moom tegg nañ ko te boo seetloo ñi ngànk làmb ànduñu ci benn firnde rek laa ciy joxe muy mille francs yi nga xam ne ñu ngi koy fayloo mbër yi bëre simple loolu boo ko seetloo quatre-vingt-dix pour cent mondu làmb kenn àndu ci buñ demee ci bëre dóor bi ki koy yor na fexe nekk koo xam ne dina def ba ku nekk gis ci boppam muy promoteur bi muy mbër mi muy arbitre bi muy spectateur bi muy amateur bi donc ñi nga xam ne ñoo ŋànk làmb daal ba ci journaliste bi na ku nekk na ci ku nekk gis boppam moom mi jiite làmb avant muy ñëw ci làmb ki xëy na kenn xamu ko woon parce que am na beneen liggéey boo xam ne turam taxu ko woon fës foofu ñëw na ci làmb làmb may na ko tur te ba muy ñëw xëy na amuloon qualification comme un management du sport les management du sport sont la am na ñoo xam ne ay management du sport lañ am na ñoo xam ne ñu ngi gérer ay kuréel sportive ci Sénégal buñ ko jiixee rek nañ gis koo xam ne il remplit le profil adéquat te na nekk koo xam ne day déglu nit yi na nekk koo xam ne décision bu muy jël na ko bokk ak mondu làmb décision boo xam ne c'est une décision majeure bu ñu jël dajaleel mondu làmb ñu réfléchir ci fu majorité bi dem ñu xam ne effectivement décision boobul parce que décision bi nga xam ne ñëpp ko décidé ndoo pour ñu appliquer ko ci lay gën a yombi mais bu dee benn groupe bu ndaw mooy décidé ci place mbooloo mi muy topp bu yàggee mbooloo moom mën na fi pour mu indi gàllankoor loolu daal laa bëggoon yokk euh, ci question bi nga ma posé mais ñi ko mën a remplacer bari nañ fi trop trop trop te ñu ngi ci biir Sénégal buñ ko jeexee du sori jarul sax sori am na fi am pagay ci milieu làmb mën nga ko fi gis ci milieu sport de manière générale mën nga ko fi gis jaajëf maa leen di mu mel ni 1000 francs yooyu askan bu baree baree bari ñu ngi koy jooy ci làmb muy 1000 francs yi nga xamante ne mbër yu ndaw yi dañ koy bindu soxna Fatima da ngay dem lamb euh, mbër yi bindu ñi gën a ndaw minimum ci mbër yi bindu day doon 64 litres luur 64 litres simple ñaari 64 ku bind 64 mille la. imagine toi 64 mille plus 64 mille. loolu xaalis boobu fan la jëm. parce que promoteur bi tëgg làmb simple moom teg na museum ba pare. mbër yi dagg nañ licence pour man amuñu benn droit mbër mi dagg licence ba pare. fay licence bu dee licence simple nga def 5000 bu dee licence avec frappe nga def 10 000 tey simple bi nga ñëw dagg sa licence ba pare ñëwaat ci biir làmb bi ñu lay laajaat 1000 francs loolu pour man du loo xamante ni yoon la loolu nag bokk na ci loo xamante ni Malick Ngom souligné na ko en tant que arbitre euh, mu doon loo xamante ni métti na képp kuy amateuru làmb simple amateurs yi duñ jug ci di ko jooy tey suli bokk na ci li ñu souligné tey loolu yëpp rek mooy doon loo xamante ne waxtaan la tey ñuy jaajëfalaat bu baax a baax Malick Ngom wolof def na lu duuf ci nag bi xajandoowul xajandoowul si cin bi ci cin bi ma ne déedéet xajandoowul ci cin bi ndax cin lépp xaj na ci lu dëgg boo toggee lii teg mhm. toggaat leneen nag bi day jeex. Mhm. ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax. mais affaire bi kon à suivre lay doon da day continuer te yeneen élément day ñëw. yaa ma ko gën a xam kon soxna Fatima ni mu ko waxee noonu lay demee fii moom dinañ ci teg suñu loxo euh, teg fa suñu baaraam fas yéene cee gën a waxtaanaat mais soxna Fatima dafa am loo xamante ne dafa dal ci monde làmb muy xale bi ngay gis mbokk yi mooy xale bi ngeen gis ci écran bi noonu euh, jarbaat la ci fëgg la bu lansaar nee na xale bi dafa réer ah, kon xale bi la waaw bi nag dafa réer réer bi yàgg na lool bi mu ngi tudd Mor Thiam Mor Thiam la xale bi tudd euh, xale bu ndaw la macha allah ndeysaan ñuy ñaan ñaan rek yàlla suñu borom mi nga xamante ni moo mën a nit yàlla na ko suñu borom nit ndax euh, fëgale nee na ma yaayam sonn na famem sonn na ñu ngi wër ndeysaan mu doon loo xamante ni dafa metti xale bu toll nii euh, xam naa ne booy xool ci xayma boo doon euh, kii ay âge mu ngi am ay diggante sept ans wala huit ans mm-hmm. moment boobu lay toll léegi nag képp ku ko gis rek dinañ leen dugalal photo bi ngeen koy gis mu ngi noonu mm-hmm. képp ku gis xale bi rek mun ngaa woote ci 77 106 26 euh, wala nga woote ci 77 887 53 66 ngeen jàppale ñu ci xale ba ngi noonu Mor Thiam la tudd euh, ñuy jaajëfal di ñaan yàlla na ko suñu borom nit parce que lu dal ci monde làmb lu dal mbëru làmb rek dal na wasaare làmb dal na képp koo xamante ni da ngaa bokk ci làmb mhm. mbokk yi kon noonu la leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqal ko ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmb man ak sama série di la jaajëfal bu baax a baax. waaw di la jaajëfalaat bu baax a baax mais dafa am koo xamante ni muy sam papa Kayre maa ngi la dégg kër nga koy masawu. Mm-hmm. moom ñu ngi koy masawu ak jéen ndax gis nañ tamit incident bi nga xamante ni am na fi di laaj di ko ñaanal rek yàlla na fa gëj. amiin yàlla na fa gëj parce que moom kenn yéenewu ko. ku mm-hmm. baax la disponible bëgguñu lool. Mm-hmm. bëgg tamit wasaare. muy per Kayre ñu ngi koy ñaanal rek comme li mu wax rek nee na gudd fan ak wér rek mooy lépp li ci des yëpp bonus la. di bëggewaat nag sama temps booy maa ngi leen di bu baax a baax ku ci mel ni Awa Seck Mami Ndiaye madame Dia ak ki nga ah, euh, ñëpp daal Awa Gueye ñoom ñëpp ñu ngi leen di béggee bu baax a baax waa groupe temps booy mhm. ah yan sa waa groupe temps booy jaajëf ñu leen di jaajëfal bu baax heureux ménage à Baye Lam Ndiaye euh, Seydou Touba Dieng bu baax a baax sëy bi yàlla na barkeel jaa ngeen jëf eh, mais mojja bu yoof ñu ngi koy souhaité waale tamit heureux ménage sama góor sama xarit naan la wax dëgg yàlla yàlla nga ci am njaboot gu barkeel yow suma xarit nga suma lépp nga yow daal mais xam nga fan la kiiwee noonu maa may njëkkee nag ma mbëri kañ lañ may may njëkkee yàggatul <laughs> merci beaucoup Adama